mbër gàlle yaay fooy fanaan mbër gàlle fooy fanaan nag activité <laughs> sant sant yàlla bu baax. da ngaa ñëw en tant que amateur rek. seetaan si combat bu neex la yaakaar naa parce que bëri woon nañ euh, mu nekkoon combat bu metti woon tey revanche bi la ñu ñëwoon seetaan si rek. Mhm. tey nga am benn face à face boo xam te ni àdduna bi ñëpp a ngi koy xaara ah. ah Boy Niang ak moom mooy Modou Lô léegi c'est confirmé. moom c'est moom avance bi gars yi lekk nañ si ay ginaar. ah waaw ñam ngeen waaw ñam nañ ko. xaw ma de waaw ñoom ne. Ah. mais ñu gis ni waa Pikine dafa mel ni combat bi dañ doon wax ay combat du siècle ñi naan ay combat royal mais dafa mel ni tey combat boo xamante ne combat inattendu combat boobu te ne xaaruñu ko woon à un moment donné mu nan ngeen koy kiiwee en tant que staff Tapha Tine nan xam nga làmb moom li ñuy wax du biir day xëy rek wasin loolu rek combat bi dëgg ñu bari xaaruñ ko woon Boy Niang aussi mérité na chance am pour dem moom tamit tante ji couronne bi parce que ci li mu jóge moo tax mu nekk làmb ju spécial aussi nag làmb joo xamante ni ñu ngi koy waajal daal ñu ngi koy waajal ci anam bu spécial aussi di naan yàlla yóbbu ci ak jàmm salaam rek. waajal. préparé préparé làmb ji waaj mel ni kuy dem xare rek waaj parce que xam nga ki ñuy dajal moo toll noonu moodu l'acteur roi des arènes xam nga moom moom macha allah moom daanaan la ñu ngi koy nuyu au passage. Modou kuy daje ak moom da ngaa war a pare pare bu baax sax da ngaa war a pare à 200 pour cent parce que lépp lépp lépp lépp Modou Lo booy daje moom doo bàyyi benn détail parce que ndaanaan la ko quoi détail booy négligé rek mu feeñ ci làmb waaw. Euh, tey boo toogoon ñu doon wax booy Niang mënul dugg tey ci poids mu duggoon ndax tafaatin bu mu bëri loon bëri xam te ne moom mooy Lac de tey réussir ci bala Gaye jël ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, euh, Modou Lo tey loolu boo koy xool ci carrière Boy Niang Tapha lan na yëg. non man bettuma parce que man xam naa xam nga ñu doon wax loolu peut-être seen xalaat la rek xam nga réewu démocratie lañ ne kenn ku ci nekk tuye li wax li nga xam ne moo nekk sax rek loolu kenn du ko aaye kenn mais ñun ñi nga xamante ni nekk nañ ak moom xam ko xamoon nañ ne mën na egsi fii mën na ko dépasser sax bilaay parce que liggéeykat la am na jom am na fula am na fayda te bëgg na li muy def te mën na ko macha allah. te xale la aussi donc euh, lii bettu ma daal man personnellement man bettu ma waaw de. Modou Lo dugg na Pikine duggaat fa pikin te le fait que mu bëre ki nga xamante ni moom mooy seen fois Balla daan na ko deux fois moom mi Boy Niang daan Balla Gaye tey boo gisee tur boobu noonu mu def Boy est-ce que combat tamit amul du risque du du doon combat bu méchant ko bu méchant. non lamb fii par rapport ak Boy Niang jógee. waaw ak euh, li nga xamante ni. Modou li mu def Pikine nag yooyu. waaw dara lool loolu làmb la rek moodu dugg na Pikine daan fa suñu grand Eumeu Sène jël couronne bi kon xam nga Modou ameel nañu bor. Modou ameel nañu bor. waaye nag ki ko daan ñoo ko daan. ki ko daan ñoo ko daan te ba pare couronne bi aussi. comme Ama daf ko digoon waa Pikine yàlla suñu borom ñëw indi ndog-ndog ñu koy ñaanal yàlla suñu borom may ko wér mu tane jàmm ñëwaat. parce que namm nañ ko mais soit ci ak def si la rek Ama ak booy Niang. combat bi dama ne comme Ama dafa diggoon waa Pikine roi des arènes. mais yàlla dogal mu am ndog-ndog. Ah. léegi Boy Niang ñëw jël relève bi. Ah. kon sotti ci ak def ci la rek. kon mu ñëw wax ni Ama ak Modou Lo ba tey ñooy bëri. Ah. Ama ak Boy Niang ñooy àndandoo sot Modou. li wax ni. non loolu mënul ñàkk yow tamit nag. Pikine la ñoo bokk drapeau bu ñuy représenté vert rouge bi. Pikine la rek yàlla nañ ci yàlla yóbbu wax jàmm rek. am na lu doon wax de nee na ko leeroon ni daan daan muurloo ni ko leeroon bu ko leeroon noonu lay duggee àjjana kon dee bu yàgg. waaw gis nga te kon xam nga ne Ama Boy Niang 6 ak 9 la. waaw Ama day jël affaire bi rek jox ko ko suñ paree delloowaat ko ko. puisque yoroon na sana. <laughs> waaw ko loolu la ñu <laughs> noonu la ngay defee. Ama Dia yow. Dombe. Moussa Ndoye yoon léegi. maa ngi fay. looy am na loo ci. ah. tàndama bi tàndama mbégte la tey. Ah. yaraaxa xew. yaraaxa xew billaay. ah Bombardier nan nga gisee ko. Ah. combat bu combat bu métti la xeex la nag dama xeex ma si yëpp mais damaa gis ba damaa gis Tapha Tine jàpp tànk Bombardier. danga gis Tapha Tapha Tine jàpp tànk Bombardier. fan nga ko gisee. gis naa ko daal gis naa ko. koo génn si kanam rawali bët. Tapha Tine jàpp tànk. waaw. moom nga gént. waaw dama gis a ma gis mu jàpp tànk Bombardier. léegi bu mu ko lan nga gis. non gis naa loolu daal lañ jëm foofu. Ah. waaw après nga fekk mu si sit am na waaw. tafaatin nga gis foog kenn foogewul nag la sit bu di sit bu doy waar sax tey tafaatin sit bu doy waar tey tey yéen ngi sit bu doy waar. Lamine ban heure moo jot. 17h17 moo jot. waaw après nga ñëw fële. tey ñoom tamit ñoom ñëpp euh, caatu yaraax wës jàmbaar ñoom combat tey waaw ñu ñëw euh, soutenir suñu rakk parce que lool lañ am tey ñun buñ ñu xewlee tamit suñu rakk dañ ñu ñëw soutenir ñu kon tey dañoo ñëw pour jàppale caatu yaraax wës jàmbaar bébé ama ak beneen booy bi ñoom lañ ñëw pour jàppale leen bu nekk euh, beneen équipe bi mais nag lépp noonu la di wax ni c'est la Yaraax ki gañ te sànq cent cent pour cent Yaraax la ànd suma rakk suma xarit suma doom nday muy Loso kon tey dañoo ñëw rek pour yàlla may ñu ndam te incha allah rabi yàlla nañu ndam yëpp dañu koy yóbbu. mais yow ci loo nekk. maa ngi jàmm man daal dama bàyyi laaj sax mbër. non parce que tamit gis xam nga dama laaj mbër. Euh, da ngay laaj mbër mbër yi yaakaar leneen leneen la naa toog avance bi ma jox mu bëri bi ma joxoon sa avance tey sax mu bëri ak yow. yow yaa yow yaa def yow ya yàq euh, li nga waroon a. man dama nekka ak sumay kilifa lu ñu wax rek loolaa wax waaw ndax gis nañu Diène Kaïré am na combat Zarko am na combat. waaw mais noonu la dañu war a am combat seen combat war a taxaw loolu yàlla rëdd bu mu ko bindee yàgg na uh-huh. waaw waruñu woon bëre. mu de laaj nañ ko mu ne Moussa Ndoye bu kenn waxati waxatam ay tapet la parce que dañoo wax ak moom mu ne bëree woo moom ndax. tontu dara lu ndaw rek laa tontu bi mu tëwee maa ko ko fooyee daan ko loolu laa am lu ma ko fooyee daan ko. mais moom nee na da ngeen a daje Maroc nga gis muy entraîné moo munu ma ñu ñu war a gisee pour entrer gisuma ko gisuma wallahi azim gisuma ko gisuma waaw ok kon nañ bàyyi loolu ñu xool leneen ci kanam ñu xam non ñaa ñiy bëri si waaye si ñaa ñi di bëri si laa soxla man ñëpp ñoo ñëpp bàyyi naa leen ay sos ak yooyu dañ may sonal rek tafaatin bu ma jee ñoom fi indi tafaatin bu ma jee moom fi indi ah. waaw tafaatin bu ma jee moom fi indi loolu ma waay rax indi yow ana bawol bawol ya jóg leen seen doom jàngoo ah mbokk yi Assane Ndiaye àndandoog bawol production mooy organiser un grand combat de lutte ca arène nationale samedi 11 février 2023 combat askan yëpp doon laaj lamb bi ñëpp doon xaar bébé Diène xale bi dëkk Médina soppe Médina yaakaaru ndakaaru ki indil ndakaaru drapeau chef de l'état mooy jàkkaarloo ak Gakou 2 doomu géejawaay ah dama ni waa géejawaay seen doom jàngoog avenir u xaritu Balla Gaye Balla Gaye ne ko maa yóbbu ca làmba ja koko sës rëkk ci moom Assane Ndiaye Bawol production jël bés bi tuddee ko doomu ndeyam Bamba Fall meeru Médina soppee njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall kon nag le 11 février du yomb ndax lii la amateur yi doon xaar te lii la Bawol production def ah Bawol production sa taxawaay rafet na Assane Ndiaye ne si bés bi Bawol Bawol bu mag bi le king des promoteurs indi na leen cinq combats cinq combats yu saf si ay naataango ndaw yu tolloo doole am fit Cheikh Super Jamono ak booy Sey 2 kooku drapeau Pape mbay étincelle couture moom lañ cay sargal ah kooku sama doomu ndey la Boy Jaxaaw écurie Thiès ak Baye Mandione Junior yaakaaru caaro yi di ci sargal doomu ndeyam Jibril Fall Leena Couture Boy Ndakaaru borom Grand Dakar ak ñaari tali yaakaaru ñaari tali di fa daje ak xale tëngeej bi ñu naan Ronaldinho xale bi nga xam ni subaree bëree ñëpp jóg ñas jolof jolof bu mag bi yi moom la ñu tuddee boobu drapeau Assane Ndiaye defati na maninam ay affiche yu doy waar yu neex bés bu nar a rëy malam ñaani numéro 2 doomu mbaar mooy daje ak Eumeu Sène numéro 2 doomu tëngéej combat bu metti baa ngi noonu ñu sargal si Serigne la Diop euh, boroom xalima bi képp kuy amateuru làmb Assane Ndiaye le king des promoteurs woo na la sponsoru bés bi TDR Harmonia King Boisson lamb ji ku ko bañ a tardé xool ko ci Bawol TV amateur yépp la woo Assane Ndiaye cey la bawol bawol cinq yu neex waaye bés bi nag lépp ñu ko dipee monsieur le ministre Bamba Fall maire de l'émergence de la Médina l'homme de la Médina ay Bamba Fall kenn du moom entre 3000 mille ak mille 000 cey samedi 11 février arène nationale